monsieur le docteur de cabinet bes bi ñu def tay mu nekk 7e édition kon olof ndjay dafa né lu yagg deug la kon 7 ans c'est pas 7 jours c'est pas 7 mois donc il faut nga am conviction mon ko réaliser lolu motax tay aussi ñu ñew comme nañ ko don défé rek défaire faire avec trois actions bi ci moi la cérémonie de remise de fournitures scolaires à l'ensemble des établissements scolaires de la commune de Dier. parce que nous nous sommes mouvement le mouvement citoyen pour le développement de notre localité donc développement nous avons tant que des ressources humaines de qualité te ces ressources humaines là ñu ko mëna am ci njàng ak formation lolu moo tax quand même ñun lépp loo xamee da fay dem ci yokk xam-xam yokk yokk formation duñ ci badiné lolu mo wara chaque année bu école ubbee ñu def li pour permettre à partir de lundi xalé yi mo dem classe dem jangi et que bu école tëjee ñu indi ñu ay résultats yu bax lolu nak vraiment su amé aussi na am parenthèse bo xamante damay remercier donc autorités administratives euh, notamment donc l'inspecteur l'inspecteur l'inspecteur de l'éducation et de la formation vraiment nous avons ñuy sur le secteur de l'éducation. kon maa ngi di suis tiant ak ngeureum bu commune Boudia à monsieur l'inspecteur d'académie bi ci conseil euh, de ministres bi passé affecté nañ ko mu nek nak départ buñu metti métti lool administration mo mel nonou les hommes passent et les institutions demeurent kon wax yo wax ma leen di ci monsieur l'inspecteur la commune de Dieu. en tout cas sous son magistère du point de vue éducatif est entièrement satisfait de son travail di rendre hommage aussi à lex if M. Faye et à l'ensemble de ses collaborateurs, mais de souhaiter aussi un plein succès au nouveau IF. Quand même, je pense que ça sera la continuité. En tout cas, nous, nous avons les mêmes dispositions pour une franche collaboration pour l'intérêt de l'éducation au niveau de la commune de Dieu. L'autre vous passez, nous avons volet santé. Là aussi, nous avons santé l'ensemble des ICP et des sages-femmes de la commune de Dieu Nous gis vraiment taxaw bi pour relever le plateau sanitaire de la commune L'old nag amé, man en tant que autorité donc locale je ma accompagne rek accompagner en les permettant ñu am des études de travail Qui loolu la ñu ñëw tey ginnaaw bi suñu rakk joxe won ben euh, machine échographie dieu encore élage mang lay sant di la gërëm di la remercier ci geste bobu parce que jàpp man ci 5 ans yi ñu dem lepp lu nit def commune Dieu man nga ko defal parce que wa commune Dieu ñu jël sen askan jox sen sen baat jox mako kon nak élage vraiment geste bi nga defone sante nañ la gërëm lañ la waye nak comme dañoo amoon ñetti poste santé bu ñu defee DIA yoon la aussi ñu jéem a mottali yeneen yi alhamdulilahi rabil alamina ci suñu relation ak suñuy partenaire ak doomu dëkk bi fii fexe nañ bu am ñaari machine échographie benn bi dañ ko yobbu ngoj bu soobee yalla benn bi ñu yobbu ko sob 2 lolu mo nekkoon problème santé bi li dess moy l'autonomisation des femmes et jigéen là nag dañoo nekk bu am solo ci Sénégal yep, ci activité yep, waaye rawat na ci mouvement MCDL rawat na ci le maire Tamsir Gueye kon a aussi il faut ma libéral di beral loxo moo tax ginnaaw respecter respecter son engagement électoral Moi dama bi may ut mairie bi campagne bi dafa neexoon lool ma gestu gis jigéen ñi sonn ci man lool ma inshallah rabi su ma élection yi le salaire du maire je le mettrai à la disposition donc des femmes yalla ci katanam def population bu Dieu am ci man qualité bu extraordinaire fal ma falin bo xamanteni depuis que je nekkee ba je ne mosu pas que nous ko aussi mettre en œuvre j'appelais les femmes là et en relation avec le crédit mutuel nous def en convention pour financer Les Légui donc Abbas wax na ko un premier financement pour 10 millions c'est-à-dire 12 millions Ça passe 2 millions de ko de 12 millions nous avons 30 millions normalement y a 50 millions de pour mettre à disposition des groupements féminins mais dafa femmes ay lenteur administrative mais dans les semaines à venir Inch'Allah Rabidin convoquer toutes les femmes de la commune pour remettre les 50 millions ñu dem encore Nico, Abbas c'est effectivement mon ambition dama avant la fin de mon mandat Madame a un financement de 100 millions pour les femmes de la commune de Dia et c'est bien possible. maintenant ñu ñëw ci point l'aspect politique après l'élection présidentielle de 2024 dafa am lu ñuy wax une dislocation daanu na beneen régime ñew ci katanu yalla ak ndogalu yalla ñun ay julit lañ dañuy nangul ndogalu yalla effectivement j'avais pas porté voté lu mo doon campagne lu ma woon Bassirou Diomaye Faye parce que man Amadou bala laa bu mu jall waye yalla moy décider kon nak yalla bu décider ñepp dañ koy bolé namuko et li dess nak moy comme Yalla y a pour réussir parce que nag avons réussi Bassirou Diomaye au Sénégal. réussite Sénégal Sénégal Sénégal cinq ans yi dem mu neex ñu c'est Bassirou qui sera le président de la République au nom de l'intérêt de la du Sénégal war nañ mettre dans des conditions pour que vous mettre en œuvre sa politique et ce que nous avons élection ñu dem beaucoup de pour nous mettre en œuvre sa politique nous moo l'élection nous élection yi si ñu appel ay main ak ay langue politique mais aussi le pouvoir Nous ñu euh, euh, euh, commencer par remercier la section locale bi nga xam ne Ibou Koli vraiment nek aussi un gosse très sérieux mon frère bo xamé ni on est deux opposants waaye nek ci respect ak euh, coloré lañ ko def euh, mu ooma wax ak ban limuy wax ak man mam aussi un appel de la direction du parti ak d'autres appels bima ñëwé aussi dama rendre compte au coordinateur du mouvement wax na ko fii léegi ne man awuma décision parce que man Tamsir Gueye may leader bi waaye nag yéenay doole bi kon nag la may décider mooy li ngeen seen bëgg-bëgg lay décider wax leen li fi nekk xool leen leen day ngeen wax ma maam yàq mu ne concertation yi ba samedi bi passé moo ci mujj ñu am assemblée générale boo xamante nii képp kuy représentant MCDL ci dëkk yi ñëw nga ñu wax ma seen xalaat wax ma seen orientation ma ne leen dëgg naa leen doyul parce que au-delà de le mouvement politique dama am ay alliés politiques té ñoon aussi dama leen jox cër daf moy ñan ñi nga xamé dañu am ay parti politique yo fa lañ ma ci MCDL kon aussi ma interroger dans la grande majorité ñoon tamit ñëpp and ci ak man né ñun daal buñ sañoon nga dire la transformation de Dieu ne continue pas. té mënoo ko continuer tant que le régime qui est en place kon on vous donne carte blanche pour que nous and bi nga xamé né yéne le maire de la commune de Dieu déclare solennellement ici que pour ces élections législatives nous soutiendrons sans réserve la liste de PASTEF Que pourquoi Diomaye mooy Sonko du waxantu. kon nag ni yaa ngi Tamsir ni le transforme la transformation de diamants moo la le mordor est là nous allons voter massivement la liste PASTEF le 17. frère et aux jeunes du PASTEF que les damay ñëw ni ko maam yak waxé ñëwuñ pour def leen dara dañoo ñëw pour jàppale leen la seule chose qu'on exige c'est le respect et la considération la seule chose qu'on exige, exiger le respect et la considération té lool amna fi pare kon nak du lool mu ñu jaxal quoi